deful passation de service te lu ci fukk ak juróom-benn ñoo xamante ni njort nañu ne ay pion yi Aminata Touré lañ Idrissa Seck da leen faa tëbalee dàq leen enquête yéen a kaay mu ñu xamal naa ñu Aminata Touré ba muy moomee vent 2013 la jëloon engagement doon tontu Idrissa Seck chaque jour bu Idrissa Seck génnee yàq musiba Macky Sall musiba ak mbelengaan Aminata Touré moo doon génn tontu Idrissa Seck jamono ji nag bul bi dafa tourné Idi moo moomee vent Idi moo ko wuutu yor ni nga xam ne moom la Aminata Touré yore woon kër ga yéen a kaay gi di Walf Fadjri bàyyi mbir moomee wax ci Idrissa Seck mi nga xamante ni ay njombe yàgg na ko topp bu passé chantier Thiès yi deltu ginnaaw gim fi deltoon ginnaaw bu métte métte jëm ci wàllum politique ak ànd gi mu ànd ak Macky Sall maanaam ba mu yàgg naa topp Idrissa Seck yéen a kaay gi daan na wax ne Macky Sall am na ñu bari ñoo xamante ni ñu ko mere ba maara day taali moo taxit woote nañ ab réunion d'urgence ngir waxtaane wàll woowu yéen a kaay gi du Sud Quotidien nee ne dem nañu fekk Macky Sall bëri na ñoo xamante ni ci majorité bi dalee na naqari ba fa naqari yam yéen a kaay gi délibération bàyyi mbir moomee wax mbir mi xew ci réew mi muy émigration clandestine yéen a kaay gi nee na am na ay rescapé maanaam ñoo xam ne dañoo duggoon ci gaal gi ci ñoo ngi xëy di nettali waa libération nee nañ ba ñuy départ mbuur lu toll ci cent cinquante personnes lañ woon maanaam téeméer ak juróom fukk waaye nag bi ñuy dem ci biir gaal gi nit ñi faatu ñuy jël di sànni si géej gi ñuy faatu ñuy jël di sànni si géej gi ba mu des soixante six maanaam cent cinquante lañ woon départ départ ba arrivé nekk 66 maanaam ña sa dee ñoo bëri yéene kaay gi ñu fekk fa Mamadou Lamine Diallo nee na dee gi nga xam ne gis ngeen ne ndaw ñi ñoo ngi koy dee ci géej gi lenn waralu ko loolu crise bi nga xamante ni moo am ci napp gi ak nag accord yi nga xam ne réewum Sénégal daat na koy signé ak waa Union européenne ndax jën wii nga xamante ni mooy yabooy yabooy nga xam ne ñu bëri ci Sénégal yi yabooy la ñuy consommé yabooy sax jamono ji kenn mënatu koo gis yéene kaay gi si ne ci accord de xam ne réewum Sénégal daal yi ñu signé woon 2014 yooyee la ñu yeesalaat andi si ay modification yéen kaay gi du source nee na ñi nga xam ne ñooy jël gaal gi jaar ci ndox mi bu ñu demee ba teeri Espagne bu ñu leen di laaj di leen di enquête kenn ku nekk ak kàcc yamuy kàcc am na ñoo xam ne bu ñu leen waxee dañuy wax ne Sénégal la ñu jugee te Sénégal dafa am guerre am na si ñoo xam ne dañuy wax ne harcèlement politique ñoo tax ñu jugee Sénégal ñenn ñi di wax ne jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum waaso ñenn ñi sax dañuy dem bay wax ne ay góor jigéen lañ dem ba mënutuñoo dund Sénégal moo tax ñu jël gaal gi journal ngay lay ak kàcc ya ngay kàcc ngir bëgg ñu bàyyi la nga jàll yéen kaay gii di vox populi yóbbu ñu diwaanu Touba nee na foofee marché Ocass lakk gu metti moo fa am lu toll ci fukk ak ñett ci ay centre commercial ñoo fa tàkk ba defub dóom yéen kaay gi nee millions yu bare bare bari maanaam ñoo fa naax saay réew mi quotidien nee na marché Ocass ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la làmboo la sapeur pompier bi ñu dikkee sax ngir ñu dugg ci biir fay lakk gi jafe woon ne leen lool ndax mënuñu woon a am fu jaar la waral mooy installation yoo xamante ni teguñu ko fenn loolee nag tax na ñu woo si sax sëriñ Muntaxa Mbàkke ngir mu yedd ñi nga xam ne ñooy commerçant yi enquête yéen a kaay nee xayma nañ ko waaye ay milliards ñoo daal di ca marché Ocass yéen a kaay gi di laas nee na ay socialiste yoo xam ne Khalifa Sall ma ngi waxtaan ak ñoom yéen a kaay gi la témoin xëy ci Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xam ne moom lay doxalee journal bii la témoin nee na wi dara revitu ci ndax observatoire de la qualité des services financiers dafa am ñaar ñoo xamante ni Abdoulaye Daouda Diallo jiitu ndax personnel ba nga xam ne ñoo fa nekk ñoom dañu ko lànk ba tëdd sa naaj waa am nañ lu leen naqari ñaari médiateur yooyu nag kenn ki Amadou Kane Diallo la te nag nee na ñu xaritu Abdoulaye Daouda Diallo la Podor lay milité Abdoulaye Daouda Diallo mooy ab responsable politique moo fi jiite woon ay jamono COSEC te nag démbam rafetu doon benn yoon kenn ki Bande Diop la maire bu Patte d'Oie li tax nag ñu neexal ko bokk na si li mu wor Khalifa Sall ñu ne déete waaye am ñaari mag ak rakk yoo xamante ni nommé nañu leen ci observatoire de la qualité des services kenn ki Habib Ndaw la kenn ki Momar Ndaw mi jiite seen journal bi tuddee ko république des copains yéen a kaay gi nee na personnel ba en tout cas ñoom ànduñu ci benn yoon yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na nag soo moytuwulee si ñàkkook vaccin si la jëm maanaam vaccin yi nga xam ne moom la ñuy toqal xale yi doog du juddu soo moytuwulee ñàkk lay def ci réew mi te nag état bu Sénégal moo waroon a verser programme élargi de vaccination lu toll si ñett ci ay milliards xale yi nga xam ne ñooy doog a juddu jamono ji ñoo ngi ci danger yéen a kaay gi di Sud ci mission d'information bi nga xam ne député yi doon nañu ko def ci ni nga xam ne moom la ñu yore woon mbënd mi journal bi nee na bëri na ay incohérence ak lu xel nanguwul loo xam ne ma nga ca yéen a kaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moom wax ci wàllum tàggat yaram ak nag gambien yi nga xam ne ñoo bloqué woon joueurs yu gabon yi ba ñu fanaan ci aéroport bi soo moytuwulee ay daan dana lalu ci seenu ndodd yéen a kaay gi di stade dikk na ci ligue des nations bi nga xam ne ni ki démb Espagne defal na Allemagne affaire lu toll si juróom benn bal ci dara la ko gagné défaite bu mel noonu nag Allemagne gëj na koo am depuis 1931